sante ko commandant zone militaire bi ak ñi xam ne ñoo défilé yëpp ren nag dañ ko bëggoon simplifier ndax boo xam ne Dakar ñoom mënuñ défilé comme ñu ko daan defee bu njëkk parce que dafa am ay travaux BRT que président waxee démb donc moo tax ñun fii deful défilé civil bi comme ñu ko daan defee majorité rek danañ bàyyi ñu def en tract pour ñu mën a installé défilé militaire de force défense et de sécurité mais vraiment force sécurité je pense que ñëw nañu défilé également impeccable maa ngi leen si félicité bu baax a baax leen wax ne nii la effectivement li ñu xaar si euh, force de défense et de sécurité moo ñuy joxe exemple si lépp lu ñuy def di joxe exemple wane seen mëneñ nit ñi mun see topp loolu la ñu war a tey nit ñi dinañ leen topp tamit si li xam ne moom la ñu mais nag di wax ne tamit thème bi tamit euh, am na si am na maanaa thème bi tamit dinañ si tax dinañ si jëlaat mën a see sukkandiku pour gën a maat leen ndax dañuy force de défense et boo dégg résilience lépp loo xam ne rek mën na dal si nit nit ki taxaw ba du ko daaneel boobee boo xoolee covid bi dal na ñu na trop am na réew yoo xam ne solo leen lool mais ñun fii jël nañ ay mesures yoo xam ne bu loolu la force de défense et de sécurité yi kenn mën a appliquer te taxaw nañ appliquer ko ba xam ne Covid bi mën na fi noo xam ne mën nañ ko wax pays développé yi am nañ ñu doon yaakaaree Afrique kat euh, catastrophe bu mag a mag am fi gis na ne ñoom ñoo ñu gën a sori sax waaw parce que suñu dirigeant jël nañ mesures yoo xam mais suñu force de défense et de sécurité yi tamit appliqué nañ leen ñu leen war a appliqué gis ngeen ko inondation yi chaque fois bu amee ñu ngi si taxawee ñoom tamit sapeurs-pompiers yi taxaw lu jënd ko vraiment mun nañu wax ne euh, feetu armée la waaye aussi feetu ndawi réew mi la moo tax en tant que maire de Thiès mënuma lu dul am mbégte gis suma dëkk gis jeunesse su Thiès ñëw bokk ak armée bi fet démb ci guddi ba léegi armée bi mi ngi ànd ak waa Thiès ànd ak ndawi Thiès di célébrer fête bu mag bi loolu day wane ni li armée di wax armée nation loolu dëgg la ca loolu mënuñu lu dul rafetlu ko ñu yokk rek ñun ubbeeku jëm ci armée ba li ñuy liggéey ci dëkk bi di ci boole armée wax naa ko le colonel Boubacar Koïta ni leen suñu yéene dem mooy continuer liggéey ak ñoom ba ñoom sax euh, fas nañu yéene lu mel ni opération de nettoiement et de désencom euh, de désencombrement bi nga xamante ni tàmbali naa ko ànd ko ak maire yi nekk ci commune d'arrondissement yi pour dëkk bi set armée dugal ci loxoom loolu lépp pour wane ni armée askan wi lay liggéeyal ca sécurité bi ñu nekk jàmm ji ñu am ba ku nekk mën a doxi ay soxlaam li ci ëpp ñu ngi ko jële ci armée ñoom nga xamante ñi ngi jël ay risques yu mag a mag a mag ci théâtre d'opération yëpp rek ngir yëkkati raaya Sénégal ngir yëkkati turu Sénégal kon ci bës bi en tant que maire de la ville de Thiès maa ngi féliciter armée bu Sénégal waaye di féliciter aussi ndawi Sénégal